mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp bëggoon naa jaar seen tur ci yéen ñëpp waaye nee nañ ma ñaari minute laa am mbokk yi mbokk yi jullit dafa war a jàppale moromu julli ba chrétien dafa war a jàppale mbokk chrétien wam juif dafa war a jàppale mbokk juifam waaye wax ji mooy lan mooy jullit dafa war a jàppale mbokk jullitam jullit jàppale mbokk jullitam mooy gis dëgg te wax ko mooy gis dëgg te wax ko te dëgg mooy Israël colonialiste la dëgg bi mooy Israël dafay noot Palestine dëgg bi mooy Israël c'est un état dëgg bi mooy Israël moo tooñ loolu dëgg te yéen ñii nekk fii loolu moo leen fi indi donc waru am benn gàcce benn complexe ngeen nekk jullit di jàppale jullit yooyu ñuy noot te nekk Palestine ndaxte nag at yi passé dafa am ñoo xam ne dañoo am complexe ba ci jullit yi dama am na ñuy jëfandikoo diine ngir noot askan loolu bëgguñu ko jëfandikoo diine ngir noot askan bëgguñu ko waaye jëfandikoo diine ngir fecci askan ngir libérer askan ngir émanciper askan ngir xeex nooteel diine boobu baax na jëfandikoo boobu baax na loolu ngeen di def moo tax ñu ne Palestine ci kaw Palestine ci kaw Israël suuf Palestine Israël ci suuf. Israël dégage. Israël dégage. Israël dégage. beneen bi mooy war nañ am gàcce état du Sénégal bu ñu moytuwulee bu ñu seetaanee ñun askanu Sénégal état du Sénégal dina jël ndaare ci beneen fànn muy jàppale bu ñu waroon jàppale suñu mbokk suñu askan suñu mbokk waa Palestine. ndaxte état du Sénégal dañ ko ràññee woon ca kaw ca kanam te li doon xeex li doon noot askanu Palestine waaye fan yii weer yii dafa mel ni ñun état du Sénégal ñu ngi bëgg a jël ndaare ci fànn boobu ndaxte boo dégluwee seen communiqué bii passé dafa mel ni dañoo yemale Israël ak Palestine te yemuñu li am mooy Israël moo tooñ li am mooy Palestine ce sont pas des violence grave et héroïque du peuple martyr de Palestine lii wax ji nekk état du Sénégal bëgg a yemale Palestine ak Israël loolu duñ ko fi tey duñ ko fi nangu Palestine vivra Palestine vaincra